waaw ba tey boo ko intoon ñu nekk ak le grand Abdoulaye Dembélé mu nekk journaliste sunu lamb kenn doon ko présenté grand ñu ngi lay nuyu. Euh, maa leen di fay waa Guédiawaye info di leen félicité si liggéey bi nga xam ne yéen a koy def waaw. grand nga ñëw tey daal di seetaan journée bi nga xam ne Fallou Ndiaye tëggoon na ko nan nga gisee lamb ji. Euh, gis naa ni lamb bu neex la parce que am na ambiance partout ci tribune bi ci biir enceinte bi mbër ñu bëre yëpp indi nañ ambiance indi nañ tamit bëre. parce que gis nañu bëre xeeñ na si ay combat euh, vraiment loolu la ñuy xaar si mbër lu ñu entraîné bu ñëwee ñu wonee ko amateur yi kontaan. mais bu ñu ñëwee ci grand combat bi nan nga gisee ni ñaar xale yi bëre. Euh, les forces étaient inégales boo xoolee mbay guy gi moo ëpp doole euh, Alioune Sèye Junior parce que Alioune Sèye Junior mun na bëree mu ngi écurie bu mag am na caayu caayu bëre mais su fekkente ni am na adversaire bi nga xam ne moo ko ëpp doole rek. day am problème boo xoolee ñu mu daan yëpp dernière si saison yi euh, moo leen ëpp doole wala ñu wala ñu jëm mag tel que Cheikh Niang euh, bu bu kees ak Mbaye Mbaye Mbaye Diouf bu bu Bawol donc boo xoolee booy bi sax dafa ñëw pour jël revanche euh, mbay Diouf nga xam ne Alioune Sèye Junior moo ko daan daaw donc combat la bi nga xam ne vraiment su ma ne su ma yoroon Alioune Sèye de Alioune Sèye Junior du ma nangu mu bëri ki nga xam ne moo ko ëpp doole mun na def carrière mais bu mu risqué de trop di jël ay adversaires yi nga xam ne am nañ kattan parce que moom tamit euh, am na euh, yàgg na ci làmb ji dafa war a jouer ci expérience bu fekkente ni gëm nga ni adversaire bi dalaa ëpp doole indi ko xeex ngi tàngaas bu metti boo ci boo boo ko jàppee rek peut-être mun nga ko sonnal mais loolu rek laa gis ko. nga ne stratégie bi nga xam ne Alioune Sèye Junior bëri na ko tey da da koo jumloo baaxul. stratégie même bu fekkente ni indi woon na stratégie bu baax adversaire bi moo ko ko mayul. parce que kooku daf ko woon nii dama la ragal mu sëgg si ay tànkam mu def déplacement parce que lu mu soxloon ci combat bi mooy contact contact dès les premiers instants mu am contact am na ko euh, jaay na dooleem génn na ci euh, c'est une victoire au forceps. waaw su ma la déggee tamit Alioune Sèye Junior nga xam te mooy mbay gi dafa teel ci moom euh, staffam war nañ xoolaat adversaire yi ñu koy jël ba différence de poids bi daf cee feeñ. waaw teelul ci moom parce que peut-être moom moo Alioune Alioune Sèye moo moo jiitu mbay guy gi ci lam mais du adversaire bi nga xam ne war nañ ko mun a jox. instant yi nii parce que mbay guy gi dafa jógee si tolof tolof liggéey am doole sax gëm na ni su ma amee doole waa ji suñu jëflante rek ma génn ci loolu la indi def na ko mu génn. tant que connaisseur de connaisseur de lutte tey mbay guy am ndam ci kaw Alioune Seye fan la fan la fan la jëm nan la a mën a bëre. Euh, mbay gi ay naataangoom ñu ngi fi parce que moom tam si espoir bawol bawol yi la bokk. Euh, am na ku jógee daan magam wala ku daan fi ay magam mooy ñoom kéewal ñoom wuli de war na mën a laale ak ñoom. ndox mbër la bi nga xam ne adversaire bañ mënu waru waru ko bañ ci lamb parce que mu ngi def mu ngi bàyyi waaram ba pare nekk ci écurie écurie bu mag am doole am fit donc loolu su ñëwee imposé loolu yaakaar naa dina si génn. grand Demba ñu lay sant bu baax di la gërëm. Euh, maa leen di remercier yéen tamit jërëjëf. jaajëf merci. merci.